merci Largé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal gan gi nga xam ne moom lañu àndaloon ci euh, waxtaan bi euh, ak ci commenté dañuy euh, daal di dugg ci ponk bi nga njëkk bu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee léegi nii waxtaan nañ ci ak Ibrahima Lissa Faye waaye dañ lañ ci soxla am ci li nga xam ne mooy xalaatu Cheikh Omar Talla Mamy Samb ak Ajaratu ngoone mooy Pape Alé le DG Pape Alé Niang et la suspension de l'accord à la RTS Mame Moussa Niang sonne la mobilisation ce di pour dire euh, ñett ña nga xam ne ñoo féete ca euh, RTS ñoom ne nañ d'accorduñu euh, ci li nga xamante ne moom la Pape Alé di def te nee nañu loolee dañu ko c'est des acquis yoo xam ne am nañ ko ci régime bi nga xam ne moo fi jógee Racine laa def ko yow man jàngat nga am ci loolee. waaw mais c'est c'est ki fi jóge léegi daf ñu leeral. Mm-hmm. parce que yuuxu jóg na kaw. Mm-hmm. nit ñi daa am ay version mais y pas une personne boo xamante ni gën na xam li nekk ci mbuutu presque que Lissa Faye bu fi jógee nii bu dëgg ñu déggandoo ko mm-hmm. yenn yokk yi salaire huit cent mille man bi mu ko déggee damaa tëb bi ñuy daw ba léegi mënuñu ko am ñoo def RTS recruter lu nag léegi non ba pare loolu mooy lu ñu la yokkal ah bokkul ak salaire gi bokkul ak salaire gi ah kon loolu loolu nag loolu ça s'appelle bambula ah kay defuñu ko daawaati géej defuñu ko ci at yële ci ban période lañ ko def ñan lañ ko defal ñan ñoo ci bénéficier wu lu tax ñu bénéficier wu si. parce que pour man RTS institution la tey réew boo gis ñuy coup d'état Guinée bu ñuy coup d'état dañuy dem rajo télévision Guinée <laughs> duñ dem feneen parce que télévision publique la c'est institutionnel li ma doon yàgg wax doom laay continuer du wax buñ demoon ba Sénégalais gis ñu seen bopp ci RTS ba RTS di dem li ñu fi tegal. après la pluie la boo temps alors que c'est pas vrai ñun ñu ngi bëgg a dee ak mbënd. nawetu daaw la du dëgg. <laughs> mais nit buñ la dénkee mbir. li nga war a njëkk a def mu état des lieux xool kii kii kii fait quoi lu ko fi indi nu mu fi toogee lii mu am ni fan la ko teg lan moo tax ñu jox ko ko ndegam war na ko am loolu nag pour man euh, Pape Alé après xew mi. fecc ak beeg ree beeg yëpp ba pare nag dañoo war a teg mbir mi ci ci ci raay gis nga man man doxuma ci ci ci ay layam-layam amu ci nañu situer responsabilité yi képp koo xamante ne am nga ci loo xam ne c'est indûment reçu na nga ko delloo mhm. moom waxuma ko moom moo ne ñiy yuuxu mooy ñu nekkoon bëkk nekk mooy système bi ñuy wax mhm. parce que foo dem di nga am ay laudateur am ñoo xamante ni da leen di jël mhm. ber leen ne ñi lay tagg wala ñi nga xamante ni ñoo la amal njëriñ parce que RTS warul nekk outil de propagande politique lu sérieux la coupe d'Afrique bu amee xaalisu Sénégal lañuy jël jënd ay droit beneen télé du ko teg ñoom ñoo koy teg xaalis boobu di dugg RTS gaf ak sénégalais la donc pour man euh, moi je soutiens Pape ci loolu ñeneen ñi ciy wax nañ ñu may nañ ñu may mënuñu continuer di mhm. enrichir benn catégorie léegi moom bi mu koy wax yokk bi mhm. yokk kay da commencer ca ña nga xam ne ñoo gën a néew doole mhm. ñëpp ci suuf. mais yéen ngeen am yenn avantage am ay ligne téléphone yéen a am ay oto. dotation carburant ak ak yenn privilège yi nga xam moom moo fi nekk donc pour man comme ñoom ñoo ne dañ ko bénéficier woon ci régime boobu régime boobu a faga waaw ah, fi mu toll ni jub jubal jubbanti. d'accord waaw ah. amul leneen. d'accord jërëjëf euh, Cheikh Omar. Euh, maa ngi nuyu Racine Talla euh, sama mag bi maa ngi koy nuyu dafa dafa dafa dafa bëri foofu moom ci ah <laughs> bu baax baax. waaw waaw ah ñëpp suñu mbokk ah, man moom. non man sama mag la. <laughs> waaye nag xam nga bu fekkee <laughs> dañu nekk ci penc mi ñu denk la yëfi penc. buñ ci waree wax suñu xalaat dañu ciy wax sans état d'âme parce que yàlla moo ñu moo ñu moo ñu bindee noonu amaana. Mm-hmm. mais man pour man am na mm-hmm. acte yoo xamante ni man mënu ko cautionner mënu ma ko défendre su fekkee ni daf ci am responsabilité boo xam ne engagé na il faudra que moom mu rendre compte parce que pour man dañu toll sax foo xamante ni ci réew mi bu ñu la dénkee mbir moo xamante ni mbiru mbooloo la. Mhm. sa gestion war nañ ci rendre compte. amul leneen Pape Alé bu fi jógee demee ci gestion mu war a rendre compte loolu mooy àdduna mais pour man am na ay actes yoo xamante ni euh, politisation bu ëpp moom moo ci am. Mhm. wala yenn mbir yoo xamante ni yaa ma neex yooyu il faut que ça ça ça ça arrête tu yokk huit cent mille. man balaa maa gis huit cent mille yi dajaloo damaa damaa damaa condamné. condamné bi sax xaw ndax musul dajaloo sax ndax condamné bi day fëq. day fëq de yàgg na <laughs> man de bu ma condamné bu ma commencé balaa ma yegg ci 1000 francs ma jël. en tout cas Lisa mi il est <laughs> li mu wax ni li mu wax ni dafa leeral. <laughs> leer leer na nañ ñi waaye il faut ñu ñu ñu ñëw ci Cheikh euh, Cheikh Omar ñëw na ci li nga xamante ne mooy yokk bi ña nga xam ne ñoo féetee. Euh, RTS ñoom nee nañ euh, wàññi na donte am na ay yokk yoo xamante ne wàññi na ko waaye moom laalul li nga xam ne mooy salaire am waa ñu nekk RTS moom xam naa ne ñoom euh, li leen dal mooy c'est-à-dire les gens sont en train de de constater de visu euh, li nga xamante ne moom moo nekk biir RTS te dëppoowul ak yoon mm-hmm. Pape Alé ndax wàññi na salaire am wàññiwul salaire am ñoom li Pape Alé na ma def xamaguñu ko mhm. ndax Pape Alé li mu def mooy dafa toogagum di gëstu ak di xool mhm. li nga xam ne moo am biir radio télévision sénégalaise te li am ci radio diffusion sénégalaise boobu doy na waar na bu koor te wax dëgg yàlla responsabilité bi mënuñu ko imputer kenn lu dul ko fa nekkoon mhm. ndax moom bu fekkee yenn contrat yi moo ko signé ak syndicat yi moo leen permettre ñu am yenn avantage yi te pourtant pendant ce temps biir RTS mu ngi amoon ay série d'injustices yu fa am mooy seen ay confrères ñoom yoo xamante ne ñii dañ leen dugal waxuma frigo de waaye congélateur mm-hmm. ñii ñu subir ay freitu injustice yu nekk biir radio télévision sénégalaise et pendant ce temps là il y a des gens qui gagnent plus que leur salaire ak di seddoo ab xaalis boo xamante ne donte ci wàllu publicité RTS war na am publicité dañuy waxante dëgg rek ndax RTS war naa xëccoo publicité mba di ko am. publicité kay ñi nga xamante ne waaw dañuy daw di wuti ji leneen lu nu am ñooñu ñoo ko yelloon. foo ça il faut ñu ne mais oui mais une entreprise boo xamante ne yow jotoo pikiiru kenn pikiiru état ngay jot saa su ne. maanaam yow état moo lay soutenir état moo lay jàppale. mën ngaa am naam d'accord. bu fekkente ne ci accord de partenariat yi la ak ci yenn yoo xam ne laal na institution bi mën naa comprendre mais il y a mhm. certaines yoo xamante ne RTS waru ko sax laal ba di ko xëccoo. nda mhm. ko war a bàyyi ak les télévisions privées et les boîtes privées yi nga xamante ne ñoom ñooy daw di wuti. ñoom mhm. ñoo war a. oui bien sûr ñoom ñoo war a jël li nga xamante ne moom mooy wàll woowee. donc non seulement ñoom am nañu la plus belle part du gâteau en plus de ça. ñu ngi am salaire yu benn journaliste amul d'ailleurs booy wax sax dañ naan la ah RTS boo fa duggee am nga sécurité. Mm-hmm. man de tey maa def RTS bu nuy wax loolu lañ lay wax boo duggee RTS am nga sécurité sécurité bi mooy lan. Mm-hmm. salaire bu baax. Mm-hmm. fonctionnaire bien sûr être fonctionnaire de l'État. avec tous les avantages yi fonctionnaire am. Euh, Ngoné Saliou di nga mën a voyager saa yu la neexee dem dikk heure bu la neexee te ñu ci bari y avait pas ce contrôle strict ba xam ndax yow lañ lay fay yelloo nga waaw wala déet. parce que am xam ne dañuy yàgg ci boîte bi du tere bu weer deewee ñu dem laal seenub salaire bu ñu fa jógee seen doom ñëw jël place wala wala seen jarbaat ñëw jël place alors que am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo ko yellool il ñi fa nekk ils ne sont pas plus méritants que ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk ci biti war a am poste war a mën a espérer également avoir une carrière au niveau de la RTS cette bombe là bi nga xam ne moom la Pape Alé wër ba gis ko te wër gi jeexagul ñoom kay waru noo mer au contraire si tu as un nouveau directeur général qui vient pour te dire ok man balaa may poser c'est parce que leurs intérêts sont menacés waaw mais ma ne boo amee directeur général bu jub kay ñëw na la xaaral et puis